Hmm? Euh, suñu grand bii ne Gris Bordeaux. waaw mbëri écurie Fass te écurie Fass alaaji. waaw euh, dañu ko agressé. Gris men Gris ñi ko agressé ñu mel nañu de. <laughs> Fallou. xanaa ñooñu tàgguwuñu seen i tàgguwuñu mbokk. waaw dama di sax dañuy benn booy <laughs> xale la dañuy booy la sax. affaire magum magum jëmb la. non loolu nekk alaaj woo il faut nga woo gris faa nga muy dégg alaaj woo. non dañ ko agressé. otoom bi daal ni mu ne tag noonu ci kaw autoroute à waaw booy bi daal ñëw ne cëfër cëfër këf portable ba gars yi daal di jël mbaaw. quoi. mais kii foreewu mbaaw. waaw fa booy bi ne ñul me daw dugg léegi nag lu tax giri tamit wàccul daw dugg. ah wóorul. ah ah, ah mbir mi toll na alaaj. <laughs> alaaj wowul giri waay. giri dañ ko agressé de. faut nga woo ko noonu mën ma koo gëm. Ah, ah baax na man de bi ne ma sërif ma ne ko naa mu ne ma ah taalibe seex bi de <laughs> gone daal dañ koo sàcc ma ne ko ah mu ne ma dañ maa agressé de. <laughs> agressé. non ki amul ndey amul bàyyi. allo. waa mbër. waaw yaa ngi yaa ngi yaa ci émission tës bi léegi la ma fàllu doon yónnee message ma koy wax Mansour Diop. manaan ko mana ma ne ko ma ne ko giri dee dañ koo agressé benn booy boo xam ne daal moo ni cëfër <laughs> portable bi daw dugg ci forewu mbaaw mën sóor ne ma loolu mënul nekk waaw waaw waaw doom day waaw doom day nee na booy sañ ne lu ne ci àdduna mais mais mais mais booy bi la def loolu moom xanaa tàggoowul

waaw. parce que booy bi bu ubbee poto bi. da lay bett. ñëwee ci man mel ni gaynde bu kii gaynde bu. xab xabtalu. xabtalu. waaw. Mm-hmm. yor mhm. benn rascul. nga rascul moom bu waaw téléphone bi sax mhm. mhm. waaw waaw waaw waaw. dëgg la dëgg la dëgg la. mais léegi mais mais mais mais léegi léegi bi mu duggee ci biir forêt bi da nga koo bàyyi daa dem ak téléphone bi. dama ko dàq dama ko dàq ba ci biir forêt bi xam nga forêt classé dafa baax lépp aussi dafa lëndëm. waaw daal lëndëm waaw de. amul amul amul benn amul benn sécurité ngay loo xam ne tey ak responsabilité yow dëgg la. wallaay la. weesu na ko. mais ban waxtu woon. waaw waaw waaw waaw waaw. naa ko. bo mooy bokk bokk awee bokk awee croisement Kër Massar mais nu kii dem fi ngay jàddee ci kii bi rond point bu ndaw boobu

ngay tiit. damay tiit parce que dama doon kii est-ce que nekkul ci ne moo dugg <laughs> ci biir affaire bi maa mën dëkk bi il faut que nit ñi bàyyi xel ni dëkk bi am na ay ay ay ay ay nit yu doy waar yoo xam ne lu leen lu leen leneen leneen di jaral pour ñu def dëgg la kay. Mmh, mmh. ah kon yow sa waay nañu la di. ah nee naa waaw yow de yow de doomu xar moom. Mmh. dëgg la dëgg la doy na waar mbër doy ko. kéem taan la kéem taan la mbër. ma ne kéem ma ne la kéem taan la insécurité bi am ci jeex na mais mais Gris mais mais mais nuyul ñu kii euh, seexu yàlla ak Maodo. waaw ñu ñu ñu ñu ñu ko de. walaay ndeysaan walaay ndeysaan walaay ndeysaan. waaw nijaayam ki bokk ak yaayam ndey moom mu jëkk dalal Basine. waaw ah, alaaji Maasum Ngiraan yal na ko yàlla yërëm yokk leeram sama mbokk akkan la. waaw il faut Sénégal xam sama mbokk nga ñu bokk fu ñu dëkk Kër Moussa Anne ak Kër Songo benn lañ. wallaay wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. ñooy ñibbi. dégg nga lii. wallaay ndeysaan. merci beaucoup. ok merci merci beaucoup merci. jaajëf waay ah! <laughs> mbër yi de bu ñu demee ba dee agressé nag alaaji xamatuma ci dara fi mu nekk nii mais dégg nga li wax de. ne damaa na nee na booy bi da koy xool rek xam ne. bandit la non non. am fi da nga mais xanaa xamoo am na ñoo xam ne nee nañu alaaji. Mm-hmm. pour ñu taxaw ci kanamu mbooloo. bu mm-hmm. bëri bëri bëri des milliers de personnes la des centaines de personnes. Mm-hmm. il faut ñu am nañ mel. Ah ñenn ñi naan la ñun bu ñu stressé il faut ñu tux cigarette ñenn ñi naan la ñun pour ñu bañ stress dañuy laal dara taxaw. léegi nag booy xam nga Gris Bordeaux alaaji mu taxaw rek nit ku lucide. ku ànd sagoom. ñu war ko agressé et puis yow nga këf téléphone am ba pare mu génnee raskulu. nga koy nga ne ko eh mbër. di ko jëmee paaka ngay ak moom. <laughs> ko xam nga yow ba léegi nii àndoog sa sago. non non non yow xam nga mën nga agressé nit. mais ñul met xool ko muy jëriñ nga ne ko eh. waaye grand wuy ma baal ma de. am sa téléphone am sa téléphone. xam nga li ma la dama lay bégee. voilà fekk bégee woo ko sax da doon sàcc. waaw nit ñi yem ci giri cool le. waaw mais nit koo xam ne yow nee nga ñuul mel yem ci moom. voilà wéeri wéeroog moom ñu ne déedéet waay nga laal péage bi wàcc mbartalu forêt gi dugg. ah yokk say jéego mu yokk ay jéegoom topp la nga puus puusaat affaire bi lëndëm mu reculer waaye gone gi yaa am fit. moo am fit. Ah! moo am fit. nag dëkk bi alaaj boo bëggee dégg dëgg moo am fit xamatuma ci lu bari de xamatuma ci lu bari de ah ma ni xale bii moo am fit ah! waaw naa ci yàlla subhaanahu wa taala te xoolal boo demee mu ngi ci biir forêt ba di ñu déglu. mi ngi mi ngi déglu. ñëpp a ngi ñuy déglu alaaji. mi ngi déglu de. wante laay démb ma indil benn benn tissu comme genre demi saison yi. ndeysaan bu ma prisonniers yi ñoo ma ko ñawal fii ci camp pénal. ndeysaan waaw ah waaw ah ñëpp a ngi ñuy déglu. ndeysaan xanaa xam nga alaaj ñi la gën a contre ñoo lay déglu waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw moo tax ñu xam moo tax ñi xam ne ngay def doo ah. yàlla mm-hmm. alaaj yàlla dafa kiimaane na su ma nammee yàlla daa kiimaane su ma nammee nit ñi sopp la ak bëgg la ak lu ñu la détesté détesté man maay xar seeni xool dugal la dugal la ci wallaahi dëgg la mm-hmm. Mm-hmm. ah alaaji simeer wallaahi dëgg la xamoo ah, ah, ay fee muy yàlla la man xoolal. Mhm. ñoom neexuñu ma. waaye ñoom laay déglu de. mais nettali gi laay bañ tey est-ce que booy déglu nga tës déggoo ma de. c'est vrai que neexu ma nag. <laughs> non man ñoom dañ ma soof. neexuñu ma man man moom naturellement neexuñu ma parce que ñoom d'ailleurs seen ligne éditoriale bi neexuñu ma parce que man ak ñoom bokkuñu gis-gis. xam nga li ma la. Mhm. mais yow lañuy ñuy déglu alaaji. sant moo tax ma ne la. sant yàlla moo tax ma ne la. woy politique yii. ak waxamaane njagamaara bis bu ne saay ba xam loo woo doo yàqu nga. dëgg la foon ci boppam alaaji. boo leen ko xañee leen ñu takk la. akolaat laa wax. fu ñu la jegee nga daw fu ñu la jegee nga puus fu ñu la jegee nga lii bu ñu lay nuyu sax gars yi nga ne leen asalaamaaleykum wa rahmatulah dajale say loxo. nga jëfeel sa bopp lool ci kanam waxamaane alaaji. Mm-hmm. saay bu xëyee mbëggeel gi gën a yokk. Mm-hmm. déggoo ma di. bu dee caaxaan nag ko tax a day def demi tour du dugg ci biir wu mbaaw bi day waaf daw bu dee am na cofee la mbëggeel ci yow alaaji puusal ba ci kanam rek bul topp sa bakkan yow ko jigéen gi de puusal ba ci